naka noonu xaadimu rasul itam wutaat yeneen jumtukaay gannaaw jumtukaay yi nga xam ne mooy jumtukaay yu yees yi tañ tudd ko léegi te muy xasiidaam yi tey xasiida yi xaadimu rasul dafa am benn bis mu wax sëriñ ma sàmba ne ko ma sàmba mu ne ko mbàkke mu ne ko eh, wat day faral di wax naan sàmba mënul kanam man gannaaw waaye fu ngeen déggate ku leen ko wax nee leen ko xanaa seeni sàmba waaye seen sàmba mii di jël loxoom teg ko ci dënnam bu tedd ba ni démbam rafete tayam rafete ni ëllëg koy gën a rafet daane ko xanaa xamoo ne lii ma def ci yéen ba ngeen defaru ku ma leen booleel ngeen defar ko ba mu defaru buñ demee ba mujjug jamono bañ a yor lu bokk ca loola néew wala mu deman sax ba amatutoon nit sax sama xasiida yii ñoo may wuutu ci ñi nga xam ne jóg nañ te am yéeney defaru te jaarale ko ci sama yoon wi sama xasiida yii ñoo may wuutu ci ñoom defar leen gindi leen aar leen ci lépp loo xam ne lu mën a jaar seen diggante akuk defaru akuk gindiku daldi dina ko tama sàmb mu ne ma ne ko sama xasida yi kat ñoo man gën ci kudul ñoom man mi leen sàkk haraba min shi'riya iblisul marid wa bi xasaidi yahtadil murid xasaidi faxat suyooxa tarxiya xasaidi faaxat suyooxa tarbiya itam ne ko sama xasida yi seen bopp ñooy gindi képp koo xam ne ku bëgg a gindiku sama xasida yi seen bopp ñoo man sëriñ yi daan tarbiya ñoo man gën ci ab taalibe sëriñ yi daan tarxiya taalibe bu sellal te taqoo ko waxaat feneen ne araba min shi'riya iblisul marid wa bi xasaidi yahtadil murid fépp foo xam ne sama taalibe dafa nekk te bëgg a gindiku bëgg a mucc ci lépp luy wàññi ak taalibeem ak pas-pasam nay jàng sama xasiida yi ndax waxtu wu mu nekkee di ko jàng iblis ak képp koo xam ne ku iblis gemb ngir bëgg koo gàllankoor yàqal ko génne ko ci li mu nekkan fu mu déggee walla mu gis taalibe boo xam ne ma ngay jàng sama xasiida yi moom iblis moomee ak kam yabalan dañuy wax wëqit xam ne kooku moom sangewu na ba duñ ko mënal dara naka noonu taalibe bi nga xam ne itam daa bëgg a gindiku xolam fóotu ci lépp loo xam ne lu yàlla bëggut sëriñ bi bëgg ko bakkatam bakkanam tàggatu itam ci li yàlla bëgg sori li yàlla tere sëriñ Tuubaa nee na nay jàng sama xasiidi yi wa bi xasaa'idi yahtadil murid te hidaaya nag moom la ñëpp bëgg ihdina siraatal mustaqima moo tax yàlla sant ab jullit waxtu jullee rek ci mu jàng faatihatul kitaab ndax fa yi ñaane li nga xam ne e, moom la góor yàlla yi jiitu woon ak yi mujj woon yépp daan xeñtu ak di ko wut te mooy al hidaaya te mooy tënku ci siraatal mustaqim hidaaya moomu nag mooy tënku ci siraatal mustaqim Sëriñ Tuubaa nee na li gën a gaaw ci maye ko mooy di jàng xasidaam yi kon nag mu mel ni kon taalibe yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew bokk na ci li gën a gaaw ci leen di sàmm tënkal leen seen posté mooy ñuy fréquenté kër sëriñ Touba yi seen jataay yi nga xam ne nekkuñu ca tool ya di liggéey muy fa ñuy liggéeye lu may jataay la boo xam ne rek dañ ko war a mën a nekk ci ay grand place yu leen amaloon njariñ lu ñu defee loola dem ci kër sëriñ Touba ca jàkka ya buñ fa fekkee alquranul karim jël ca jàng buñ ko fa fekkut wala ñu jël ca xasida yi jàng wala ñu toog di déglu ña nga xam ne ñooy jàng xasiida wala ñuy jàng alquran wala ñu di leen xool sax donte mënuñoo jàng xasiida wala ñu jàng mënuñoo jàng alquran ndax xool ga ñuy xool kay jàng alquran wala xool ga ñuy xool kay jàng xasiida ak toog bañ toog ak moom képp danañ ci jël ak defaru danañ ci jëlit lu leen aar musal leen ci lépp loo xam ne e, lu mën a yàq seen pas-pas ak seenu taalibe rawatina nag bu fekkee ne sax dañ caa boole di déglu borom xam ya nga xam ne ñoo fa nekk kon mu mel ni xaside yi buñ ko seetee seeteelu ci borom digle résultat bi dafay leer nañ ndax doo fekk benn taalibe sëriñ Tuuba bu nekk bitim réew te saa yu xëyee baa def dara jël ci xaside sëriñ Tuuba jàng ca kemtalaay la ko jotam may mu jàng ko ca bu gontee bu wàccee ca mu doon liggéeye balaa tëdd wala balaa def dara jël ci xaside sëriñ Tuuba jàng ca la ca ak jotam may mu jàng ko nga gis ko ci lenn loo ko war gis dana aaru ci wàllu pas-pas dana aaru ci wàllu diine da nga ko gisit mu doon koo xam ne lenn loo xam ne lu sunu borom subhanahu wa tere wala sëriñ bi tere ko doo ko ci gis jàngkatu xasiide buy jàpp ba sell di jàng xasiide yi sëriñ Tuubaa yi te yàlla rekk tax doo ko gis dara ci lenn loo xam ne lu naqari yàlla eh, doo ko gis itam muy sori lenn loo xam ne lu ko yàlla digal kon xasiida yi kon bokk na ci jumtukaay yi ëpp solo ci aaral taalibe bi ak taalibeem di ko aaral pas-pasam di ko dolli diine di ko soril seytaane di ko soril képp koo xam ne ab noon la bu mën a jaar digganteem ak diineem ak pas-pasam waaye mu mel ni xasiida yi kon it e, jàngin wa dafay nekk lu mat a bàyyi xel ak yañ ci war a jàng ndax xaside yi toujours damay wax ne ay médicament la pharmacie la pharmacie nag garab ya ci nekk yépp fay faj waaye nag garab genn gu nekk ak la muy faj xam ngeen ni kenn du jël garab boo xam ne biir buy metti lay faj di ko faje bopp buy metti kenn du jël garab boo xam ne ab dagg-dagg ak góom lay faj di ko faje itam yaram wala dënn buy metti waaye garab genn gu nekk dafa am lu muy faj xasiida it xasiida genn gu nekk dafa am lu muy faj kon nag eh, dana ca baax comme moom def na sax xasiida genn gu nekk turu xasiida ga mooy notice ba su fekkee ne déggoo arab ba xamee loola itam baax na ca nga dem ci koo xam ne moom xam na laaj ko jàngoro yi nga xam ne moom nga jàpp ne moom dal na la wala yi nga xam ne dalu la waaye bëgg nga mu bañ laa dal nga laaj ko xasiida ya nga xam ne ñoo mën a faj sa jàngoro yu xol ak sa jàngoro yi jikko yooyu ndax xasiida yi am na ci yoo xam ne ñaan la goo xam ne lépp loo xam ne loo bëgg pour ëllëg walla nga bëgg ko pour tey maanaa sëriñ tubaa wax na ca nan ngay jàkkaarloo ak yàlla ñaan ko ko ba may la ko am na ca xasida yoo xam ne itam jéggulu la yoo xam ne nettoyé sa xol ak sa e, say jikko ba mu nekk ndab lu set ba loo ñaan yàlla mu may la ko ndax bàkkaar bu bari day tax boo ñaanee yàlla du la may boo ñaan loo nitug yàlla yi du la may Serigne Bay Jaxate dafa wax ne dalay wan mayam yépp tey yër sa xol mayul dëgg mu gis sa xol bañam kon xasiida yi jégglu yooyu it nga xam ko xasiida yi nga xam ne itam eh, xasiida la yoo xam ne dafa aju ci luy yokk sa daraja sa diggante ak sa borom ak lu lay defare ak sa diggante ak sa borom borom jullit loola itam am na ay xasiida yi boppam yooyu yëpp nag nga laaj ko ba xam ko fa tabaarakallaahu eh, seet ñi nga xam ne ñoo ko xam ñu wax la ko loo ca dem ba war caa jublu nga seet xasiida gi nga xam ne eh, mm, ca la loolu aju nga jàng ko yéene ko sunu borom subhanahu wa defal loolu kon ci gàttal rek lii mooy li nga xam ne mooy li ñu tënkan tey war ko waxtaane ci loo xam ne luy aar ab taalibe eh, bu nekk bitim réew rawatina ndaw ci pas-pasam eh, ak ak taalubeem ak njullitam ñoo ngi leen a sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.